bu ñu commencé ànd euh, mën naa ne du ci Macky 2012 ma def un historique bi rek xam nga dañ naan Bennoo Siggil Sénégal Bennoo Siggil Sénégal xam nga lu ko indi dafa amoon coalition bu ñuy wax isse ICR wàllu Bennoo loolu coalition bu yàgg la ci année 2007 2008 la woon avant ñu def jonction bi muy coalition boo xam ne si lañ doon retrouver Talla Sylla ak jëf jëlam da ci retrouver Cheikh Bamba Dièye da ci retrouver Macky Sall qui n'était pas candidat qui n'était pas président da ci gis également Mamadou Lamine Diallo Tekki RND jàll Diop ak ñun waa UDS siège bi c'était euh, au niveau de la zone B mooy siège Lamine Diallo bu Tekki Tekki donc kon pour dire que ne yàgg nañu ànd ñu jógee fa ànd ak jël Front Siggil Sénégal bi nga xam ne fa la les grands nekkoon Tanor Moustapha Niass Bathily ñoom euh, euh, Landing donc ñu indi suñu iseer wàllu bennoo ñu ñoom seen front Siggi Sénégal ça a donné le Benno Siggi Sénégal donc foofu la ñu déparé jógee fa di dem ci euh, Cheikh Ahmed Dansokho en tant que Benno Siggi Sénégal di fa ànd di réunion et cetera et cetera ba nga xam ne euh, ba ñu jógee foofu ba nga xamee ne candidature unique mënta am euh, Tanor bëgg a nekk candidat Ablaye di nekk kii nekk candidat du sa Moustapha Niass Macky Sall également bëgg a nekk candidat donc loolu moo waral ñu yegg ba ci Macky 2012 bi parce que nag bu may bu ñu doon réunion Sall Ahmed Dansokho Macky Sall pratiquement ñu la ñu la doon toogal bokkatoon ci grand yi donc ci salon bi ko doon gis Tanor Bathily Niass euh, Dansokho Macky était avec nous ak euh, Mahmoud Saleh Benoît Sambou Seydou Gueye Oumar Ngom donc fa lañ ñu commencé euh, bi nga xam ne candidature bi unique bi amul ñun il fallait choisir et dans notre ñii dañu àndoo bëggoon ànd ak Bennoo Siggi Sénégal Moustapha Niasse ñii bëgg ànd ak Bennoo ak Tanor bu Ousmane Tanor Dieng et finalement euh, il a on on, on s'est dit c'est moi-même qui ai porté cette proposition pourquoi pas ne pas choisir la troisième voie comme dégguwuñu et c'est comme ça que nous avons été avec le candidat Macky ñu ànd ak moom premier tour yàlla may ñu ndam et avant boobu il fallait de def li ñu woowee protocole d'accord et chaque parti de Macky 2012 l'a fait avec président nous on l'a fait au Goudrette bu euh, restaurant bu nekk fii fa lañ ko defee woon donc euh, euh, Abdourahmane Sow bi ne M23 mu lire la déclaration en wolof moi j'ai lu la déclaration en français donc pour dire suñu cheminement ak la président Macky Sall du tey tey du ñun rek am na neen parti yoo xam ne ñu ngi fi lim sànq lu mel ni Synergie républicaine mu wax sama xarit Moustapha Diagne Mouhamadou Moustapha Diagne bu muy porte-parole éducation national def na ko donc euh, ku mel ni euh, yenn parti yi Moustapha Fall Thié APL ah, def na ko Arona Coumba Ndoffène def na ko donc euh, ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi woon ci nouveau parti ñoom Alassane Cissé ñëpp def nañ ko ak le président donc bu loolu weesoo ñun ñëpp ñu cheminer daa Macky 2012 premier président nag wax dëgg yàlla ba ñuy doog ànd ak moom amoon nañu deux postes de ministre deux ministères amoon nañ également ay poste de direction amoon nañu PCA amoon nañ également euh, ay député pas benn député mais ay député parce que fi mu nekk mën naa ne man rek maay député ci coalition Macky 2012 mën nañu wax également que ne amul benn ministre boo xam ne léegi jógee na ci coalition Macky 2012 parce que poste yi ñu amoon en tant que ministre yoratuñu ko direction yi yoratuñu PCA yoratuñu ko donc mën naa jàpp ne à part direction bi nga xam ne moom la kii yoree si éducation nationale Moustapha Diagne ak ñi nga xam ne tamit yox nañu ay postes de conseil spéciaux ak euh, ak haut conseil je pense que ne même le poste de haut conseil yowatuñu ko. donc euh, moo tax amoo ci frustration. c'est c'est légitime que mu am ñoo xam ne dañuy mer euh, parce que nag mën naa ne ba ñu ànd ak président c'était pas évident te kenn xamutoon ne dina gagner xëy na ñun ñoo amoon cofeel ci moom am gëm-gëm ci moom ànd ak moom yàlla may ñu ndam. mais nag tamit euh, mën nañu wax tamit que ne le président Macky Sall kenn ku ci nekk ci ñun euh, xëy na euh, après la na jël yenn poste yi mais kenn ku ci nekk am na responsabilité boo xam ne joxoon na la ko mais dañu jàpp ne man sama xalaat bu gàtt coalition day màgg day màgg certainement donc distribuer bi du yomb donc peut-être moo waral ñu la am sañ-sañ def yenn yi c'est comme ça que je comprends. parce que nous le président nous ne considère pas euh, xëy na Macky 2012 moo amul représentativité parce que euh, coalition bi mel na lu implosé Moussa Diop euh, dem na yoonam euh, waxu mandat bi moo ko moo ko moo ko yóbbu et puis en parenthèse ma xamul tax samay tudd Moussa Diop Moussa Diop moom xamul tax sama koy tudd <laughs> ce gars là je devrais mais, mais non, bon a eu juste non je reste professionnel mais c'est Moussa Diop waratuma woon tudd turam. donc euh, Moussa Diop a été emporté par la par par, par l'histoire du du du troisième mandat. Arouna Coumba Ndoffène gis nañ dernièrement. il était ministre conseiller il était candidat à Biscuiterie il n'a pas pu euh, prendre le dessus électoralement parlant moom nee na il est contre le troisième mandat te it mu ngi yëglu mel ni dafay euh, présenté wu est-ce que du yéen euh, seen faiblesse seen seen faiblesse électorale est-ce que du loolu moo tax tamit Macky Sall tegu leen aux aux avant-postes parce que séddale bi lu mu metti metti metti jël na en compte les intérêts de Moustapha Niass lu mu metti metti metti jël na en compte les intérêts de de de Ousmane de de de du parti socialiste euh, avec la tête euh, Aminata Mbengue Ndiaye mais pourquoi jëlul en compte Macky 2012 est-ce que électoralement parlant est-ce que Macky 2012 am na lu mu koy lu mu koy apporter. xam nga loolu dama lay renvoyer au premier tour de l'élection présidentielle de 2012. Macky Sall parti avec nous avec les partis yi nga naan amuñu activité amatoo rek benn grand parti bu mu àndal. mais c'est le quotient peut-être personnel mu la àndal mu am 26 pour cent c'est le quotient mën na d'accord naa loolu mën na am euh, quotient euh, kii am personnel am oraayam ak sympathie bu nit ñi am ci moom également mais bul xeeb apport bi nga xam ne tamit ñi mu àndal indi nañu ko ndax nag euh, parti boo gis am na ñu àndal am na ay am nañu représentativité boobu tey kenn ku si nekk si ñun tey boo demee Kaolack sama base doone man tekki ma fa dara. tey boo ñëwee Dakar dans la banlieue doon na sama parti tekki wu fa dara ndax moom autant am na capital sympathie autant man Adji Mbergane am na capital sympathie. waaw mais xam nga boo naan tekki tekki dara. li koy liy firndeel pour un nom politique tekki dara mooy un mandat local soit nga nekk euh, député. Euh, ci sa euh, grâce à ton mouvement wala dans le dans le grâce à ton mouvement wala grâce à ton mouvement nga nekk maire nga nekk élu local mais aujourd'hui au niveau de euh, Macky 2012 vous avez eu le mérite d'accompagner Macky mais force est de reconnaître que il y pas une tête qui dépasse même Moustapha Diagne bi nga daan dégg muy défendre lu bari président je pense que moom aussi il est gagné par la frustration euh, kenn déggatu ko noppi na mandat ci Macky 2012 defe naa su ma juumul yow rek la yaa ci laa ciy dégg te xëy na yow tamit euh, voilà président traité defal na la traitement bu baax euh, nekk nga député nekk nga vice présidente euh, groupe parlementaire au niveau des femmes de Benno aussi am nga fa am nga fa cër. waaw xam nga nee nga sànq gisoo kenn koo xam ne dem na laaj baatu askan bi ci parti yi nekk ci Macky 2012 xam nga looy fàtte may mun a gisatoo benn parti bu jóg. demal boppam laaj baatu askan. APR ban moment la dem moom kese laaj baatu askan xam nga kon baromètre bi nga bëgg a teg dama jàpp ne rek euh, mu du loolu kañ nga gëj a gis muy parti socialiste muy AFP muy parti yi ngay gis yépp même muy opposition parti bu génn poom dem dem élection parce que on est plus maintenant à l'ère des messies maintenant c'est les coalitions et ça c'est depuis des décennies une décennie pratiquement donc ñun suñu parti bu ñuy judd ba tey ak yeneen parti yi ma gis yëpp ak même parti yu traditionnels yi demuñ élection ñoom donc kon nag euh, représentativité ni ñu ko mën a nattee rek mooy ànd bi ñuy àndandoo. mais mais man waxuma ne waxuma ngeen dem euh, epsilon laaj baatu askan wi c'est-à-dire pour le cas de Arona Coumba Ndoffène euh, Diouf moom xëccoo na li nga xam ne moom mooy la tête la la candidature. Euh, ak sax ba taxoon sax euh, mujjuñu ñu euh, jiital ki président bëggoon a jiital président jox ko mais bi mu demee amul yow tey au niveau de Kaolack xëy na tey am na benn représentativité boo xam ne boo ko fa amoon président bu élection yi jotee du jël Mohamed Ndiaye Rahma jiital ko dina la jiital parce que affaire bi ay présomption kese la mais loolu la ñu gisul au niveau de Macky 2012 xëy na bu ñu leen dul teg au devant de la scène pour les législatives pour les euh, pour les locales xëy na tamit euh, benn poids bi moo moo moo poids électoral bi moo des. xam nga boo nekkee ci coalition parce que wax nga ko man mënoon naa jiitu ñi nga xam ma jiitoo wala bitey jiitu wala keneen jiitu ça moom c'était c'était possible mais on a un président de coalition c'est le président de Benno Bokk Yaakaar c'est également le président de Macky 2012 moi je fais coordonner la coalition. lui c'est le président de la coalition et de Macky 2012 et le président de la coalition de Benno Bokk Yaakaar kooku tey bu taboo kenn man tout le monde savait que candidate laa woon j'étais très avancé te jàpp naa ne bu ma ne woon candidate tey new ma ne euh, sëriñ boobu du gañe de waaye yaakaar naa ne bu gañe ma du yomb mais nag discipline de coalition la ak tamit li nga xam ne mën naa ne représenté naa ko en tant que vice présidente ama groupe groupe la ko joxee rek nga bokk si ñu koy téye rek c'est politique munoo jóg yow def sa parallèle mais j'aurais bien pu def sa parallèle comme les autres te Kaolack bu ñu amoon sa parallèle jàpp naa ne kon. doon euh, ngeen doon euh, kon dañuy gagné. kon bennoo mooy téye li nga xam ne mooy mairie bi. mais nag yàlla dafa def mais face caméra amuloo benn frustration booy exprimer au président par rapport au traitement qu'il accorde à Macky 2012. mais wax naa ko. xam nga nee naa bii Macky 2012 ñi fa nekkoon leader yi. ñi koy accompagner woon bañ koy ànd ak moom kenn gëmu doon président kenn àndoon ak moom tey ñi fi nekk ñëpp ñu nekk ay ministre ñu mën a nekk mag ñun bi ñuy ànd ak président kenn àndut ak moom. moo tax nee naa je comprends la frustration des uns et des autres mais nee naa le président aussi li muy def ñu ne ko sañ a def parce que il ne nous considère même pas comme ay alliés mais comme famille am la ñu voilà.